tomb boo xam ne néew na ñu koy sóoraale di ko bàyyi xel te moo ne bis bu set mu gën a jege si ku ko sóoraale nag lu ko neex mën naa def lu ko neexit mën naa wax waaye bari na luy xew loo xam ne bu ñu ko doon sóoraale sóor mooy baal xel baal ko xel su boobaa bari na lool nit du ko def walla nit du ko wax bokk yi bu ñu demee ci alxuraan mi nga xam ne suñu boroom bi mu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu waajalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam def ci jëmmam ju tedd ja lum defut ci kenn yami àndal yépp te nit di ca am benn ñu di ko xool mu dajale ca lépp bi ko yàlla di wàcce ci moom bu waxutoon dara lu tax mu wàcce ko it dañuy nangu lépp waaye dafa wax ci alxuraan ne bokk na ci yi tax mu wàcce ko yërmande jum ëmbal jaamam ñi bu ëllëgee ci kaw nag ñu bañ a bokk ci ñi nga xam ne bu ñu waxee ñu ne alxuraan attewut ci réew mi rek yam ca yal nañu yàlla musal ci boobu pas-pas waaye mu nekk garab gi leen di faj bu ñu wéradee waaye mu nekkit ndeyi téere bi ñuy tudd ci tudd ci réew mi daan nangam mooy ndeyi atte yi bu dee ci jullit moom téere bi nga xam ne mooy ndeyi atteem di atte atte bu maalu mooy alquran alquran nag léppam la ab jullit di jël euh, jamono bu nekk ak fu mu ko mën a fekk ndax suñu boroom moo wax ne dara du ci ak neen te it kenn mënu caa dugal lu ci bokkul du tey du ëllëg ndax ki mu jóge fi moom muy subhanahu wa taala ak ki mu jaar fi moom jëm si ci jullit yi mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne téere la bopp barkeel la barkeel ci suñuy wax suñuy waxee nun mooy lu bari rek lu ne gàññ bokk yi alxuraan ak barkeelam bu dee lu bari lay tekki euh, lu wér la ndax amul fenn ci kaw suuf foo xam ne jant baa nga fay fenk ak so te alxuraan nekk fu fi ne bu fekkee ab jullit nga fa rek ma nga su fa ab jullit nekk gutit ay waxam jiitu na fa jullit ba su fa àggee du juum ci aw doxinam ak i waxinam waaye nag nee li muy barkeel barkeel ba dëgg dëgg ki muy gën a sëmbartalu ci moom mooy ki nga xam ne léeg-léeg da ko naan jàkk di ko seetantal loolu mooy ki nga xam ne daa dëgmal lu mu àggagul nu mu cay def bu ëllëgee waaye dana fàttali it la weesu woon ba xam gaaye bu ma toll fii nu ñu ca defoon kitaabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayaati wa li yatadakkara ulul albaab waaye nag ñax na ñax mooy joxoñ baaraam laaj ab laaj boo xam ne soxla na ca tont mooy mbaadu nit ñi alxuraan daf leen a muntata waar am settantal gi moo des am mbaadu seen xol yi daa tëju rab ba dara mënatu ca dugg ci lu baax tontu ba euh, am na ñu ko mën a tontu ñi nga xam ne soo waxee ñu ne al bu ma waar ab jullit lu mu yow di ko waaraate lu dul alxuraan bu ma waar nañ wax ci mbirum adduna te moo ne alxuraan ci adduna la nekk agun afala yatadabbaruna alqurana am ala qulubin aqfaluha moo tax bu ñu demee ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ ca fekk yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moom amul lenn luy xew ba jàll te waaraate wu ca waaye suy waaraate it alxuraan lay jël teg ne leen maag yéen ci yam nii la ma dikkale am na ku ñuy wax umma hisham bint xaarisa ibnu nu'man radiallahu anha nee na moom saar wi ñuy wax qaaf wal quraan al majid ñi tudde ko suratul majid ñi tudde ko suratu qaaf wal qaaf yam ca nee na jàngewu ko ci jenn daara lu dul ca jumaa ja fa yonent bi sallallahu wa wa sallam daan taxaw juma ju nekk wala léeg-léeg mu woote fa la ko dégg ci yonent ba mokkal ko rup mokkal ko rumbox ndax bu ñu demee ci saar woowu danañ ci fekk ni alxuraan di waxee ci lu nekk di tënk jullit ak nit akuk nite léeg-léeg mu wax ca baat yoo xam ne ni nga ciy tege sa bët bu dee ak suba la doo yendoo loo xam ndax tiit su dee ngoon nga ko dégg doo nelaw moo tax mag ñi daa ko xalaata xalaat ba far xëy jax tàkk jeexali nelaw ba mel ni sax ku naax far ndax xalaatuñ dara lu dul li alxuraan wax tam wóor leen ne bis bu set saa bu jant fenkee so ñu ngi koy gën a jege te xamuñu nuñ cay demee yu bari la waaye dañ cay jël rek tey lim tudde sakratul mawt mooy miir moomu nga xam ne kuy bëgg a faatu daf koy miir eh, te miir ma fa mu ko jëme mooy dee moo koy yor ñu di ko wax sukuraat bokk yi sukkuraat saa bu ñuy mayee ab sëy moo xam ci jàkkale wala ci kër wala fu mën a doon dangay dégg ña fa toogoon na ne ñoo ngi ñaan sëy bi yàlla def ci barke ci njëlbeen gi yàlla ci yàlla def jàmm ci njëlbeen gi barke mujj si barke ba ciy mujj mooy ngirte ak njaboot feeñ ca njabootuk lislaam yàlla na ko yàlla defal waaye du tax ñu bàyyiwaal ñu ñaanaale far ñu ñaanaale fa de bis bu ñuy sukkuraat bu njaboot tàmbalee ñëw bis ba ñuy tudd nit ki di ko wutal aw tur di ko reyal am ab gàtt xar wala lañ am da nga dégg ñu ñaan ñu fedd li ñaan ngañ ñaanoon sant yàlla ca lam leen may ñaanaat ko kii ñu fi tey gudd fan xamuñu ne gudd fan faatoo cay topp lu mu sori sori waaye balaa kenn faatu jaar ci sukkuraat waaye du tax ñu limaale ko ca moom duñ ko ci limaale aw fanam rek la bëgg mu gudd kon bokk léeg-léeg kooku nga xam ne moom lañ ñaanaloon kuñ gis ne ko ñaanalal sama xale bi ñaanalal sama ngóor si ñaanalal sama gone gi ba moom ci boppam mu xam dem ñaan lu ji du tax mu mukk wala boog néew nañu ko ñaanaale naan bis bu ma àggee ci sukkuraat te foofa jaroon na di waxtaane guddi ak bëccëg ndax yi ndaxte leen nit ñi teggi seeni tànk wa jaat sakratul mawti bil xaq euh, miir moomu mooy miir bi nga xam ne du tàggoog nit mukk te tàggaliwu ko ak njabootam ak alalam ak fonction bu mu mënoon a yor bala mu tàgg moom dana ko tàggaleeg ñëpp dana ko tàggaleeg alalam tàggale ko ku njabootam tàggale ko fonction bu mu mënoon a yore ni muy dikkale nit ñi nag moo wuute am na ñoo xam ne lii xew léegi ñu koy wax malaise la leen di dikke ñu jékki-jékki rek ne fàtt ci suuf benn muy nelaw kuy nelaw moom fàtt na lam yoroon lépp ak lam xamoon ñi ko gën a jege ak ñi ko gën a sori la yamale xàmmeetul kenn léeg mu doxe ca faatu nelaw ay fan luñ mën def ko fu ñu xam yóbbu ko fa foofee nag yàlla dana wax moom loo xam ne moog yàlla doo nga koy dégg moo tax moo tax bàyyi xel lool moo tax yàlla ne zalika ma kunta minhu taxiidu lii la dal nii mooy lañ la daan wax bu yàgg te saa bu sam xel saa bu ko sam xel jubee rek feneti jëm feneen tey nag agsi na loolu yow dong yaa koy dégg yàgg yàlla képp moo tax muy jékki-jékki na xaj ñu naan lu muy xool fii te fekk li ngeen di xool ak li muy gis du benn da ngeen bokk di xool waaye moom mi ngi gis li muy gis du bokk rek leen ngeen di gis yaramam bi tàmbalee dee tànki ñi ko xam dëgg sax dañuy tàmbalee làmb tànk yi ba xam sedd na am déet mu tàmbalee faa sedd jëm kaw ba ba muy agsi ci dënn mu noyyi noyyi yu diis ñu nañ ko teg galaas ak ko teg ngegenaay lekk mu ne xëndal yàlla ne ko zalika ma kunta minhu taxiidu mooy li nga daan moytu mooy li nga daan daw tey nag moom kii fa la jëmee mooy ci dee la la jële la jëmee te dee moom waxoon na ma ak yéen ci alquran ne inna al mawta alladi minhu fa innahu mulaqikum yow mi moom nga dëgmal te doo dëpp wa nufixa fi suuri dalika yowmul waid moom nag moom mii nga xam ne sukuraat na fa mu fas yéenee xaar yàlla bu dee jullit la woon dëggantaan bu ko fasoon ci ab xolam te daa ko jëfe ci ay cëram day daal di dugg ci waadullahi inna allaha laa yaxlifu lmiaad laa mooy day rafet njort lool ci jot ca la ko yàlla digoon ci jullit bi mu doonoon waaye nag yowmul waid ci keneen ku dul ab jullit fasul lu jullit di fas mooy lañ ko doon wax ci ay fitna yépp dëgg mën nga ko te doo wàññeeku yàlla nañu ci yàlla musal wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid su ko defee nag mu tàmbalee gis màndarga yowmal qiyaama te moo ne mi ngi noyyi de ndax lu mu mës a jëf ba mu doonee mu kàllaf ba tey bisub tey dañ ko koy indi mu jàkkaarloo moom ni muy xoole film boo xam ne 1960 la woon ña fekke woon 60 mën nañ caa xàmmee ay nit ñi fekkewul 60 it mën nañu ne kee diwa muy dox di wax noonu la jàkkaarloo ko jëfam te du mën a feneti am na ay riwaayaat yu wër yoo xam ne ci yonent bi la jege sallallahu alayhi wa mu ne nit ki léeg mu toll foofu gis ci ay jëfam loo xam ne bëggu caa gis dara ndax ba mu koy def da doon nëbbutu te bëggutoon ku ko gis yàlla nag ko tey ci kanam mu leer nañ fu mu feneti jëm fa mu gën a leer ci moom léeg-léeg mu gis ay jëfam loo xam ne du bëgg a bàyyi ndax baax waaye yemi xool te bëgg ko gis bokk na ca rek doy del alquran lool lu ñu wax ñu ne bu ma waar bu bëggee feneti yàlla waxam ne ko laqad kunta fi gaflatin min hada lii bañ la koy wax ba ngay jox di dikk jóg di tàllal say tànk muy tàlli ngay tàllal say loxo muy tàlli ngay tëb di dal tey moom fa kashaf na anka xifaak tey dara du la um la nga weesu ak li nga jëm mi ngi ne tey ci sa kanam tey it ngay woo kii walla kaa ndax ñi ngay waxal duñ ko dégg fa kashafna anka xitaaka fa basaruka al yawma xadid tey li ngay gis day jël miir bi la ca gannaaw miir ba day leer ci yow nañ su jëru takk ay weer jëru takk ab lub jëru bokk yi foofu lu fa sës réccu amatu fa njariñ moo tax jàngalekat yi di jàngale na ku toll ci sukuraat te mooy gan gi dee di jëkka fëgg néegu nit ki ak ruuxam nañ fay toog di jàng lii di jàngalaa bu fa kii jege bu fa kaa jege loolu lépp lañ ci jublu rek mooy xam ne waajtayawu diis la léeg-léeg nit saalik fa wax loo xam ne bu do bu dund bu jógaatu dund dañ ko koy xoole ba faw léeg-léeg ngir mu def ko waaye loolu lépp moom balaa nit kee toll foofa te fekk mi ngi dund na fexe ba dugg ci ñi alxuraan di wax naan fa dhakkir bil qur'aani man yaxaafu wa'iidi sooy waxati ak nit ñi da leen wax ci alxuraan waaye nanga nga na tànn ña nga xam ne nag su yàlla ne taxaw leen ñu taxaw bu leen xuppee ñu gëm ne xupp boobu ëllëg day dal bokk yi nag bu ñu nekkee ci réewum jullit moo xam na ku wax ci alquran ñu ne bu ma waar boo ne alquran nee na ñu ne réew mi lislaam attewu ko ndaw réew mu dugg ci fitna jum xam kañ la cay génn boo ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun ñu ne yàlla baax na moytu leen baal leen xel bis bi nga xam ne yéen ñépp da ngeen maase daje fa suñu boroom te fekk par kenn ñoo doon dem niñ doon ñëwee par kenn kama badaakum ta'udun bis boobu nag su ñëwee kenn ku nekk nam fay ñëwee kenn ku nekk ak ni muy faatoo ñii malaise lañuy ñuy am taxasus bu nekk spécialité bu nekk ñu woo ko mu dikk xool xool yëngal ay mbagg ne ah fi ne de yàlla rek ci des naka jekk yàlla la woon disu ca dafa ne bopp ba ne ca tànk yi ne ca digg ba ne fépp waaye léeg-léeg nit xeeb gàncax ga sax ca biir këram te moo ne ca këram nga la daa di dagg ca meññet may lekk malees ne ko tàpp ñu ne ko tee ngaa xob ci kër xobi kër gii naan mu ne wóoluwut waa kër gi na dem feneen ci geneen garab gu ne ci geneen kër foofu la ëpp yaakaar ñun wóoruñu sax ba xam ka dem ci geneen kër ñu jox ko yeneen garab xobi yeneen garab yu ñu xamul nu mu tudd malees ba bàyyiwu ko sukuraat duggoon ko ba faatu ba mu faatu xamuñu ba xam sax ñëpp la ñuy delloo seen déet moo tax euh, lu waay jaboot jaboot lu mu bari bari alal mansib bu mën a yor fonction bu mën a yor na bàyyi xel ne sukkuraat moom kenn ku ne dina ci jël wàllam nañu koy waajale nag su fekkee ab jullit nga nga fexe ba sa dund gii soo ca mënut a ñàkk sédd ñeneen it nga def ko ñeenti xaaj jël ñetti xaaj xaaja di ko dund suñu borom ci ay wax ak jëf fu way nekk mën na ko fa dund benn xaaj ba nga xaajal ko ñeenti xaaj joxaat benn xaaj ba sunu borom joxaat ñetti xaaja suñu boroom benn ba ca des saa boo xoolee gisoo koo ci jëflanteel nga joxaat ko suñu boroom su ko defee mujj gu rafet ngay am tey it wax nañu ne ñi sukuraat wuutante nañ ay daraja am na ci ñu baax ñoo xam ne yàlla leen suturaal day ñëw rek fekk ñu faatu te yàggut ñu defar leen defar bu rafet kenn mënut a li ne ba muy sukuraat la doon def am na ci ñoo xam ne it danañ sukuraat juróom nit ñi dañ leen di seete ba far taay bi lañ amoon ci alal ji yàq ña leen doon taxaw ñëpp tay lu ñuy mujj di ñaan nañ ko jàngal lii ak laa ngir mu faatu ñu noppalu nga dégg ñu faatu ñoo xam ne dañ naan diw daa noppalu rek te fekk sukuraat sa moo metti am na ñoo xam ne duñ sukuraat te bokkuñ ci ñu baax ñi day gaaw lool la ko waral mooy bu ñu mënoon a wax ne yàlla day ne yàkkamti ndax dañ doon yàq suuf si day yàkkamti la ñuy wax du leen jaarale fen dañuy jékki-jékki rek dina wadd na cëpp dugg ci mbugalum suñu borom loolu nag ay wax dana ci boole nit waxantu waxantu sakkantu ay jëf bu ma waar fii alxuraan atewu fi réewum lii lañ yor ak laa bis bu sukkuraat ñëwee dellu gannaaw dana dana ñor xom te day weesu su ko defee ñii sukkuraat juróom-ñaari at lañ amoon jeex la seeni bokk amoon jeex xam ñëpp xam nañ ne moom buñ faatoo dañoo noppalu dañoo noppal nit ñi waaye xamuñ ba xam daañu noppaloom de nga dégg ñu koy rafetal naan xisaab dañ ko doon xisaab yow ma yaqumul xisaab ak seegul yow ma yaqumul xisaabu ak yow ma yaqumul xisaab mooy bis bi yàlla di réglé jëfi jàmm di jox nit ñi seen téere ñuy jàngal seen bopp gannaaw bu mu leen peeselee waaye dañ ko doon xisaab di ko woyofal ak rafetal déedéet am na ñoo xam ne dañ sukkuraat yenti weer boole ko di tëb di dal ñu di leen téye am na ñoo xam ne aw tàngoor la leen di dikke ñuy ñaq rek di teg ñu taal ventilateur ba yàgg doyatu ko ñu monte ñaari ñu monte climatiseur ci wet gii fa teg fi muy tëdde mënu mënutu teg muy ñaq ñu monte benn ci ginnaawam bu dee borom barke ñu monte ñeenti climatiseur ci biir néeg bi nga xam ne ku dara jotagul moom bu fa duggee daal gaaw génn ndax sedd bu metti te du ko yëg moom léeg-léeg mu naan nañ ma sotti nañ ko sotti ndox mu tàng léeg mu naan nañ ko dóor ay yat am na ñu koy wax am na ñu ko mës a wax ndax yaram day xasan xasan soo xam ne moom dong moo xam fi muy xasane te mënoo ko ko wokkal ndax doo mënoo ko dàkk foo wokk mu ne fa ca des la am na ñoo xam ne day ñëw di metti seen yaram ñu di leen bës foo bës ba defee ne fa fa sedd na mu ne làmbal fii ba xam am na ñoo xam ne ci naan la leen di jëmee dañ ko jox ndox mu naan kër gépp mën nañoo tànk ku ne siwoom ndox jox ko te du tax mu bàyyi am na ñoo xam ne boo toggoon ñaari kilo yu ceeb def ko som bi ñu naan ko léegi nga ndax jeex na loolu lépp bokk yi li muy tegtale mooy kii moom nañ laaj ba xam lu mu nekkee woon ci kaw suuf nga dégg ñoo xam ne la tax ñu rawale leen dañuy bañ ko leen xamal dara rek waaye bu fekkee xam dara mënut a ñàkk na doon ña war a xam rek na doon ña war a xam boo ko génnee ci kër gi yóbbu ci geneen kër it xam a xam xam te fu leen neex waxee su ko defee muy lu mat a waajal ni ñu koy waajale nag mooy ku dib jullit na fa alxuraan teg ko ci kanamam di ko jàng di ko xool di ko settantal fépp fu mu diglee te defagu ko woon mu xam ne ko moom lay waxal fu mu teree te xam ne ma nga ca woon mu xam ne moom lay waxal su ci defagu woon mu xam ne moom la koy tere bala mu caa àgg te def ko ab waarukaay waaruwaay ndax soxna si nga xam ne da doon déglu yonent bi di ko wax ak waxaat ba mu mokkal ko ca ku ne xam na ne gëm na yàlla gëm na yonent bi gëm na alquran ndax ñor na ko waaye jullit boo xam ne bii musta wax lu jëm ci alxuraan kenn musta gis mu yor kay alxuraan di jàng wala mu toog fañ koy wala ña koy jàng neex ko sax alal aqal yi bu faatoo ñu seet ña gën ña yaakaar ne ñoo gën ci kaw suuf buñ koy jàngal alxuraan alxuraan du ko jëriñ dara ndax alxuraan loolu taxut loolu taxut ku faatu tax koo jóg ñii dund ko tax a jóg yàlla nu yàlla dafa dégg ak topp te musul seytaane ki pakkam يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين